wuytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farjëkki su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw ne yaa wat daawoote ña daawaate Moustapha santal dayab cente yaa fi gën amul ku lay werente te ka ngaayoo ci Moustapha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 amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Moustapha wala yaara yu ma yaay borom xaas ni Moustapha Muhammadu Abdallahi ax nii bi Moustapha ña daa xiiru ak ñay mat rahmatullah seen gëñ ya foq yaa Cheikh Mahmoudul Moustapha say taalibe ñii nekk Ndakaaru féete sowu jant nga xam ne yaakaaruñu ku dul yow amuñu ku yow bëgguñu ku dul yow bokkoo leen ak kenn wutuñu lenn fenn yow rek sa jëmm ci rek lañ wu ñu kenn soxlawuñu lenn ñun daal sa ngërëm la ñuy sax guddee bëccëg subaa ngoon ñoo ñëw tey fii di la ziar ci bisu bis bu tedd bii di màggalu Touba muy bàggalu Cheikhul Khadim Khadim Rasul salaam ñu ngi ànd ak Cheikh Mamadou Lamine Mbacke sa rak waaye sa taalibe moom taal doxandi taalibe li gën a dox dox doxandi rek ñu ànd ak soxna Ami Mbacke ànd ak soxna Ulimata Kañ mi jiite jigéen ñi sëñ mba sëñ Mbàkke Sylla sëñ Mbàkke Sylla sëñ Mohamed mii moo yore moo yore sous section homme ñooñu ñoo ñëw ànd ak alaaj Ndiogu Fall alaaj Ndiogu Fall ànd ak koo xam nag jàmbaar la joxe bi du sonn du tay du toq mag la atam ak ñàkk ak ñàkk wéram mayoon na ko mu toog këram bañ a ñëw yónnee doomam sax mu ngi fi ñu koy wax sëñ ma ñëw Sylla bàyyi ma Sylla Sylla mii du sonn du tay saa su ne mu ngi ànd ak ñun di tàngi tàngi tàngi dem na boo ko doolam jeex tàkk waaye fu mu nekk nii doomam ñi moo ko wax toogal doom ji xalaatu ko sax toogal noppali ko ñi moo ko ñëw nañu nag ñooy doo xam ne bi ñun yëg nañu ne dafa dugal nga ci sa loxo mbooloo mi bu leen xoolee di nga xam ni li ñëwoon daaw li ñu wane sëñ Tuubaa mu tànk gannaaw feeñ ci suñu convoi bii ñëpp ci sant ñëpp ñoo ci sant ku ne am nga ji lu kawee sa njort tàmbale ko ci sëñ Mouhamadou Lamine mii ba ñuy départ Dakar bi kaar yi ñëwee mu tourné xool kaar yi ay bus daa lañu am ay ay minicar ak ay auto yi nangam ay njaga ndjay waye ren daayir bu ne dafa jël bus ñu daan di 30 personnes dañu am problème ak nit ndax ci ñu koy duggal moom moy seen problème bus yi fess na del ant na ñok waa Thiès ñëw ànd na ñok Liberté Thiès ñëw sëriñ bi daal waxtaan wi mom mën na bañu a gudd waxtaanu pel rek lepp naka baax ñun ñi ku ñu bëgg ku ñu am dem ji mom lañu bëgg liggéeyal guddi ak ba ci ngoon liñ ko waxon nak Dakar mom rek lañu ñuy yeesal fii moom lañ ñu doon wax sànq jigéen ñi nan la yaa moom tey ak ëllëg suba ngoon fu ñu tollu sëñ bi amuñu dara amuñu kenn ñu new duñ bëgg suñu xol yow yaa si ne bokkoo ñoo kenn lu waay am na ko téye waaye yow loo am duñ ci doyal yow moom loo am moom na ñëw duñ ci doyal xale yi nag jàmbaar lañu ànd nañu ak waa social ànd nañu benn oto boo xam ne bii ay bagages yi nekk jëm ci ndongo yi ay lu mel ni ceeb ak ay yére ak yooyu nekk ca ànd nañu ak jigéen soxna Mate Kañ jàmbaar la waaye sëñ bi dafa am ko waxoon daaw ñu bëgg nga wax ñu ko ñu góor ñi daaw jigéen ñii da nga leen wax ni ku nekkul seen biir mi ngi seen ginnaaw léegi nag ñoom ñoo ñu mën léegi nag comme ñoo ñu mën nag waxal ñu loolu ñun ñu ñu ñu ñu mën ñeneen ñi ndax mi ngi sa loxo laa yor lépp ñu ne lépp yaa ko yor léegi nag defaral léegi nag gone yii tamit gone yi xale yi ak mag ñi képp koo xam ne kii am na doole des na toujours doole man Cheikh Ndiaye Sikkim da doon wax dara mi jóob ma naan daa dof ndekete dofut daa xam ne nekk ci yow lune ne koy dig nit ñi ñii tim dig naa leen lu ne ngi doog faal mii lu lu baax lu muy wér muy am muy tab muy ak taalibe muy xaalis wax naa ni sëñ Moussa Mbacke moo ko yore nañu fexe ba mu ubbi loxoom nañu fexe ba mu ubbi loxoom lu muy ubbee loxoom nag mooy nekk ci ay ndigalam di def li mu bëgg te wax na ko ne mooy daayira bii ay baawul xaddim bi sudi xew mi wax na ko léegi nag nañ ci samp suñuy xel di ci daw suba ngoon di def lu nekk waxtu dafa jot kenn ko nekk xam na ne suñu noddee moom dem na wax ji nag mën naa gën a gudd lool waaye ñi ngi sant góor ñi ngi sant jigéen ñu ngi sant ñëpp ñu ñëw li ñëw ren mosuñu am loolu sëñ bi euh, Dakar Dakar dañ daan dañ daan dañ daan dajale xaalis di dajale xaalis ba defoon ay jàmbar lañu ren laaj bi dafa tegloo bis bu ne ñu ngi laaj saa ñu ko laaj ñu ñëw ku mel ni Baye Mor nii saa yu ñëw bu ñu laajtee ñoom Malick ñoom ñëpp ay jàmbar lañu kenn du dem ba ni mag la géej waaye dañuy jóge wala fu ne saa yoo ne ñëwal indi xaalis mu ñu indi làkk bi dafa tegloo moo tax loolu mën nañ ko loo ñu yow daal yaay seet loo bëgg ci ñun waaye loo bëgg jekk nañu ñii moom da nga leen a moom kenn bàkke bàkke sëñ Tuubaa bokkoo ñu ak ku yàlla bind yàlla moom yàlla moom billaay wala yàlla moom jërëjëf bul faale ko wuy seek farje ki Moustapha asalaamaaleykum Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi leen di nuyu bu baax di tàmbale ci nuyoo bi taalibeem jawriñam léppam Cheikh Mouhamadou Lamine Serigne Bara Mbacke mii ci wetam toog mi ngi nuyu ñëpp ay wut kenn waaye dafa mel ne ni ko Serigne Cheikh Mbacke jenn waxee léegi wax ji baati na ngi ci kat ndax bi ma ne naa nuyu sëñ Baara day naa ci teg soxna Alimata Kanji ak soxna yi kon sëñ bi li nga wax léegi dikk na ñoom kat ñi moom. tubaarkalla soxna Alimatu sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax yaag mbooloo mi nga àndal ñëpp soxna Ami Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine mi ànd ak yéen ak sëriñ Baara Silla ak sëriñ Cheikh Mbacke Diagne mi jiite section bi dana mi ngi nuyu alaaji ma Silla Silla di ko ñaanal bu baax di ñaanal ñëpp di nuyu bu baax itam alxaaji Ndiogo Fall ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne moom ngeen àndal yëpp teew ci barab bi kon nee mi ngi fàttali nag bu baax li muy jiital ci fàttali gi nee na mi ngi nuy fàttali ki nga xam ne moo nu fi indi bàyyi nu fi da ko soob def te mooy yàlla sunu borom te nee na du ko nuy fàtte kat na taxaw bu baax ci ndigal yi sunu borom yi te xam ne day jàppandal sunuy mbir nekk ku la gën a nekk ci ndigal yàlla yi. gën laa jàpp gën la gën laa ay mbiram gën a jàppandi wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib képp koo xam ne yaa ngi sax ci ragal yàlla ak jaamu yàlla ak nekk li sa borom digal sa sa yoon ni wut sa bopp foo jëm rek daje fa ak sa borom loolu nee nan sax ci jaamu yàlla bu baax ci ne ko sa borom digle damay faral di wax nag ne moom mii di Cheikh Mouhamadou Moustapha day kenn ku nekk ci noonu war ngaa seetaat sa bopp bu baax ndax lépp loo xam ne taxaw na koy sunu kanam digal ko kenn ku nekk xoolal da nga mën a waat Sëñ Tuubaa ni moo la mën ci ndigal la moo la ci man rek moo nu ci man kon lim nuy digal nan ca ne te xam ne ci la sunu njëriñ nekk jaamu yàlla gii muy digle ci la Sëñ Tuubaa amee lii jataay bii ci la ko Sëñ Tuubaa amee ak yeneen jataay yëpp sun borom natal ko roo yépp natal ko mbindeef yépp teg lépp ci loxom ndax nangu gën ko nangul nang ko doon mu jàmm firnde ji kat du jàpp sëriñ bi lim ñu digal du loo xam ne daf koy wax rek ne nu yoon waa ngeen dem waaye da ci ànd ak nun te lii mu ñuy wax nii ku ubbi sam xel tuuti dana da nga gis misaal bi mu leer ci jotaay bi léegi ndax gis ngeen jumaay sëñ Tuubaa ji jumaay Cheikh Moustapha ji bi mu sonee nodd daan naa di wax nañ bay lépp bin bàyyi lépp ba noddu gi daanu it daa jóg moom it bàyyi lépp na ñëpp maase waxi suñu borom def li suñu borom wax teg nañ suñu bët képp ku gis leneen yaa gis leneen waaye moom yàlla ak Sëñ Tuubaa rek la gis nan ko nekkal ci loolu jataay bi firnde loolu bu yemoon ci lii rek ñu jóg julli ji rek mu taxaw xool nanguutu gis kenn kuy taxaw nanguutu gis kuy organise nanguutu gis lan ndax sàmm lislaam rek bëgg ndamal lislaam bëgg ndamal lislaam ci loolu rek waaye nit ki waaye na nekk ci loolu waay nan ko ci nekkal nan ko jàppale nan jàppale lislaam man ci sax nan ci dëgër sëñ bi loolu la bëgg ci noonu te yomb na nag te jàppale na itam ndax mi ngi nii te mooy sunu élément te comme doon sa élément doo jamaj comme doon sa élément doo jamaj mukk kon loolu doo feex la ci noonu kon nee nan sax jàmm yàlla bu baax beneen toom bi ci des nee na mi ngi fettaliwaat ci mbooloo mi dimbalante gi ak àndandoo gi ak boole xol yi ci de waaye neen lu ngeen ci gën a nekk rek moom doyalut lii sëñ Cheikh jandoo wax léegi ne ko lu waaye am bay man nañ ko bàyyee waaye loo am doyulun ci doyulun waaye moom it da ngeen xam ne na bennoo ak dimbalante lu ngeen ci def rek doylu ci te yàlla xam na ne di ku ci nekk da xam ne moom mi yëg na ne yaa bëgg nee na nañuy dim dimbalante leen ci seen biir boolewaat leen xol yi bu baax bëggante leen ba koo gis rek mel na gis nga ñëpp lu ngeen gis muy tag wala muy jafe wala muy ñagas wala muy dëgër ci xol yi dong la waye sallahu bu xol yi maasee and lepp lu mu bëgg ko bu ne tikki ci seen xol rek loolu day daal di am wajur mu tedd bu sel bu baax cheikh mohammed mbacke mu tedd ma bis nit ñew na fi mo siyaré yëkëti sayu mburu aw sayu mburu wuñ def ci wuñ def ci mbuus saa cëb saako jox ko addiya mu dal ci mu kam dédalon mu ne ko ca man de borom man de fii ne su sama sama kersa mi ngi gëna a dolli ko rek sama diggante ak suñu borom dal ne ko xamul tax mu ne ko ah mu ne daf maa fayee day def lu ne tik ci sama xel mi rek loola dal di jëw man de fii wax ñaan léegi de jëlale ñaan waaye xel mi sax suma ko mënul tey ba mu dem ci dara ma di ko señ mbacké wax lool lool ak sun borom mooy dégg li wax ba jëlale na ñaan sun borom jëlale na ko. waaye léegi su ma mënoon a téye xel mi danaa ko téye ndax lu mu tikk loolee daal di ñëw loolee nag moo fi nekk ba tey kon sëriñ bi neen nan sax ci jàmm yàlla tax xam ne lu bëgg mi ngi ci loolu waaye nag nee na li gën a bëgg moom daf caa bokk lu mu gën a boole suñu bopp boole xol yi bu baax ba koo gis rek mel na gis nga ko ca des sàmmante it bu baax a baax ci ku ne ñoŋal sa derub moroom na kenn ku nekk fas yéene jataay bii. bañu togat ak mom te yalla ci tay bi di yag di yag nga jaayanti wat ne sama mbokum talibe sama mbokum julit fas tayen ab deram mom duma ci tak dara mu tay duma may kenn ci aduna koy wax sama mbokum julit ludul non na ko ni yobale lol lol bu ko defé rek neysat tawfiq dana bari ñepp dañ firgi xewli itam dana ñew bu baax tay lay kat gak ak lay andi musiba ak yenen ci lu mel non mbolo mepp lan ci mucc kon neena mi ngi leen di digal loolu bu baax a baax fetlewaat jàppoo gi ak ànd gi ak dimbalante gi neena mi ngi fetle ci tomb bi ñu des li ëppal njariñ ñëpp te lépp gi ci biir muy fetle fetlewaat laxasay ak talib sunu talib neena lu ñuy bëgg lu ne nañ ko seet ci ak talib top topp sëriñ bi rek bëgg sëriñ Tuubaa rek fetle fetlewaat laxasay bu baax jaayante jaayantewaat bu baax jéem dox te waaxu bu baax ndax sëriñ bi kat fa mu jëm ñeme na fa lool. xam na ko lool te ragalu fa it waaye nag yittee fay dem yittee fay dem yitte nag mooy nan mooy fas yéene saa boo xëyee rek la nga defoon démb nga mel ne defoo woon dara loolu nag yéen nee na war ngeen a sant yàlla bu baax a baax ndax li wér te wér mooy fu ngeen nekkoon ku nekk kenn ci yéen lu woon ne bu ngeen toogaatee ci kam yëg nga ne dooleeku nga baax a baax yëg na ne mbooloo maa ngi dooleeku yëg na ne pas-pas baa ngi dooleeku yëg na ne positif baa ngi dooleeku la ndax yaa ngi nii ma taaj kenn ku ne li nga bëgg mi ngi nii may janoor waaye feeg boolewu leen seen bopp dama leen ne boole ba nopp kenn ko ne may kër sa jox la sëriñ bi nag ne na ngeen xam ne yéen ndab loolee nekk ci kanamam cër yi moom tàmbali na dugg moom na ngeen xam loolu na ngeen na leen wóor ne kenn ku nekk sëb bi nga xam moo la ko yoreel mi ngi ñëw agsi na du lu muy waaj de bu kenn natt bi ku nattab li loolu rek bay boo nga tàmbali waajaat ku nattab li sa bopp ne sëb cër ñëwul wallaahi bay boo nga tàmbali waajaat moom tàmbali naa joxe moom ndab lee dañ koo taajoon di ko waaj joxe léegi dañ koo tibbaateloo te nun ñii nag lay jëkk a jox te dañuy romb nag ku yaa fuus nag ba yëf yi romb na yaa ko def sa bopp waaye Cheikh Moussa nun ñi doom taxuñu koo jóg nun ay poosam lañ ay jibaam lañ li nit ci bëj da ko yëkkat toq ñi ci àll ba wax naa ko waxati ko ca Makkatal Mukarrama dañoo dem di ziar Rasulullahi ma nag ci gën a am ne ko Mbàkke day noo ngi fasaaleel dong yi déglu ma lay wax baax noo ngi day Mbàkke mu ne patt ba yàgg mu ne ah waaw moom day sant yàlla rek noppi naa ci ñoom fii nii di ci al ummatul islam ci julli ñi laa nekk fii nii julli ñi laa nekk man loolu dama ko fàtte moo ko wax ñooñu moom Moustapha noppi naa ci waaye ci julli ñi laa ne jullit ñi kon foofu la nekk kon nan fekk lewaat la saa yi bu baax góorgóorlu bu baax te santaat yàlla bu baax te ñeme nag ci liñ ne sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali liggéey bii mu santaane di ahiba al xadim li nusrati diinil xawim wóor na ko ne fàttewu leen wóor na ko ne yéen ngi ci waaye dafa bëgg a dëgëral seen pas-pas ci ngeen xam ne ak lu ngeen fi mën a gis ak lu ngeen mën a dégg li ñuy wut li ñuy wut te di ko soxlawoo mi ngi ci liggéey bi te képp koo xam ne yaa ngi ci ak koo mën a doon ak foo a ne ak lu mu ruqe ruqe na la wóor ne boo ko gis dig na nga xam ne moom Cheikh Moustapha mi ngi sa gannaaw loolu doy na sëkk mbooloo mi loolu doy na sëkk liggéey bii di Ahibahil Khadim nee ñuy wut laa li ñuy wut di ko bëgg ci sëñ Tuubaa ak sëñ Mudu Musaa secret boobu mi ngi ci liggéey bii te képp koo xam ne yaa ngi ci la ne jërul ngay xool dara boo geesoo boo ko gisut loo nekk mën a ca lool nee na nag li ngeen ci def lépp gis na ko yéen waa section Dakar sëñ bi seen pas-pas gis na ko bu baax nee na xam na ko yëg na ko xam na coono yi di jànkoonteel ak li ngeen nekk lépp waaye nee na na leen doy gàllaaj na leen doy ngànnaay na leen doy wéeruwaay ci ne moom mii fu ngeen nekk bi nga ànd ak yéen ca lool te mooy seen ngànnaay mooy seen gàllaj mooy seen wéeruwaay na ngeen jàppaloo te yóbbaale loo te xam ne ni nga ko daan waxee rek na leen wóone te tey ëllëg ku ngeen gis ku nekk ku ngeen bëgg a gis bu ñu demee dajeeg sëñ Mudu Musaa sëñ Mbàkke da ngeen di gees waaye seen kan du nga di gis kenn loolu nag ñi ko koy amee ci ne ci ndigalam li rek nan ni ci ndigal li lu mu ne waaw rek loolaay dëgg lu mu ne waaw rek loolaay dëgg nañ nekk ci lool te yéen loolu baax a baax ak lu ngeen mën a dégg ak lu ngeen mën a gis ak lu mu naat naat ak lu mu rafet rafet ak lu nur lu baax lépp lu baax bari na waaye moom mi lu mu wax nga ne waaw rek moo am njariñ rek moo am njariñ ci moom nangul ko rek la sëñ Moustapha Gaye waxoon rek alxuraan li muy bari bari sëñ mu Gaye newoon na ko jëluma ci saar jëluma ci isib jëluma ci robo alxuraan jëpp benn baat laaj benn araf benn lettre laaj jël benn lettre mooy lettre waaw yow daal loo wax teg naa waaw ci na kanam nañu roy ci jàmbaar jooju sëñ Moustapha Gaye moom yi kon lu Cheikh Moustapha wax ne nee leen wax lu Cheikh Moustapha laa ne nee loolu rob ci lépp nekk kon nag ñun ñëpp nan maase nan maase te man dama waat fii jumaa jaa ngi ak sëñ Touba bu nga ko ñaanalee suñu borom def ko waaw seen xol yi li ci nekk ak pas-pas yi bu nga ko ñaanalee laa ne sëñ Touba dana ko def na ñaan na fi yàgg na wér lool li bëgg liggéey sëñ Touba na ko liggéey ba amee ko ni mu ko bëggee kenn ku nekk sa ndab yaa xam la nga bëgg mu nekk sa ndab yaa xam la nga bëgg ñu def ko ci ubbi leen ndab yi insha allahu dana fees bay falngaat bu kenn loo xam ne mosoo ko ci na ñëpp maa sàll loxo yi bisimilah. bu kenn cantul waane yëgal ni samay sang bu nekk yàlla may na koy may waane may ab sang may yi mu la may sang bu dul yow yàlla ay yëf la may yow nag yàlla dalaa sopp mbàkke ba jëmmam la la may. sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha